yu bare bare yàlla may gudd fan ak fekke ak tal may ko mboolem jullit ñu ngi nuyu suñu papa Pamansu Sow muy papa daara ji di nuyu imam di ko dalal di ko wàccee wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla yàlla taxawam taxawaayam imam ñu jox la kàddu gi nga def ñaan ñu tàmbali jotaay wi bisimilah. alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala xayri man arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashaabihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin wa aqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon ñu ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu muy nuyoo boo xam ne mooy nuyub lislaam muy nuyoo boo xam ne mooy nuyub waa aljanna ndax ni ñu ko alquran jàngale laa yasmahuuna fiha qawlan wala taaziman illa qiilan salaaman salaama kon mel na ni tey ñu ngi ci kaadar boo xam ne fas yéene taxawal loo xam ne dégg nga ko tey dara luy yëngatu ci kaw suuf dara gënul ko ci muy lan muy jàng alxuraan su loolu paasee bu ñu nuyoo oustaz Mamadou Mbaye ñu teg leen ci yéen soxna yi nga xam ne tey kuy jàngale koo gis dafa am ñu nekk ci wetam mu naan leen wax leen waaye su bëggoon a jàngale bëgg jàngale te amul ñum jàngale tamit du sotti kon nag yéen a ko dëgëral. loola it nag lu ngeen nekk nekk jigéen ngeen dégg wax ja nga xam ne ñu ne borom xam-xam yi nee na naa sawdatu yonent saw sawdatu sawdatu mi nga xam ne moo doon soxna yonent bi am na ñu ko taaweele noonu ne ba alxuraan wàccee di wax ci góor ñi rek dégg ko moom moo jëm ci yonent bi ne ko waaw xanaa ñun jigéen ñi yàlla waxu ci ñun dara alquran wàcc ne innal muslimina wal muslimati wal muminina wal muminati wal qaanitiina wal qaanitaati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسحين والقاسحات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والعافسين فروجهم والعافسات والساكرين الله كثيرا والساكرات ñooñ day ahada waa law maghfiratan wa ajran asima te ñooñu kon ci ngeen bokk ngeen ay ñaanal yàlla yal na yàlla yokku leen taxawu leen saa yi bari baati nañ su ko defee ku nekk nag balaa ñoo commencé na jàng fatiha bu sell la dégg ko def ayatal kursi falaxe ak naasi salaatul fatihi ñu ñaan yàlla kiy njëkk a commencé ba ko ca mujj lépp lu mu fi jàng yàlla na ko yàlla dégguloo bi jaahi raf yàlla sàmm seen ustaas sàmm seen mbooloo saahiran wa baatinan kenn ku ne na jàng fatiha ayatal kursi ñetti peru salaatul fatihi salaatu falaxe ak naasi ñetti peru salaatul fatihi ñu commencé bismillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbil alamin imaam jërëjëf kàddu yi rafet na macha ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla sa taxawaay ñu ngi nuyu yaa Seyda Alimatu di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal si daara yaa Aïcha يا سيدا تفرن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله إلينا رحمة فكان لنا خيرا نعمة وعلى آله أطهار وأفرار وسلم كثيرا أما بعد أيها المسافرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنها إسات رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حال أتصفه في حد من حدود الله ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم سريف تركوه وإذا سرق فيهم دهيف أقاموا عليه حدا متفق عليه جلينين كتها na ko yàlla gërëm mu jëlee ko ci yonent tibi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni ndax yéen da a bëgg a teggi aate yàlla bu mu fi def ngeen def seen aatey bopp lu mel nii de na nañu leen fi jiitu woon ndax ku tedd bu sàccaan ci ñoom dañ ko daan suturaal waaye ku néew doole bu sàccaan ci ñoom ñu ne nañ ko aate ba pare teg ko ci yoon hadis bi borom xam-xam ñëpp a si d'accord yow sama yaay maa ngi lay ñaanal nel amin nel yaa ma dugal daara ba ma xam li ma xam yow sama yaay شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعزيم سلطانه وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد mbokku jullit yi mbokku taalibe yi yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi ñu buur bi subhaanahu wa taala boole muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñuy santar yàlla bu baax ci ak mbaaxam moom ñu dimbale ba ren jii mooy juróom benn yoon ñu taxawal lu mel nii kon ñu ngi ñaan yàlla suñ borom mu saxal ko yàlla mi nga xam ne mooy buur ñu ngi koy ñaan yàlla nañu yàlla gën a taxaw te weeru koor wii ñu nekk yal nañu yàlla dimbale ñu mottali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di sant kilifa yi fi toog di ci jiital suñu imaam ndaw di ko ñaanal yal na yàlla gën a dëgëral taxawaayam di ñaanal nag télé yi ndax ñu ngi def liggéey bu am solo ndax at mu jot rek ñu gën a wane seen taxawaay macha allah ci jiital asfiyaa yi gis nañ seen taxawaay bu baax DTV wax dëgg yàlla at bu jot ñoom ñu ñëw gis nañ fi KS TV macha allah seen TV moom it wax dëgg yàlla boobu ba léegi ànd ak ñun. ren nag wal fajiri moom ne na moom wax dëgg yàlla ñoom it ñu ñëw bokk ci jataay yi kon yooyu mu doon yu am solo ñu ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp nag bàyyiwuñ kenn kon bu defee rek ñu jox yaa Seyda Dieynaba mu di tàmbali liggéey bi kon yaa Seyda macha allah yaa ñu ngi lay ñaanal yàlla yàggal sa taxawaay ci daara al xàq ak bépp daara boo bëgg a ko defee ñu tàmbali jotaay bi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 ihwatal iman assalaamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatuhu mbokku jullit yi tey dañ leen fi indiloon xadis bu am solo an umar radiallahu anhu aydan qaala baynama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin id talaa alayna rajulun shadidun bayaadi siyaabi shadidu sawaadi shiari لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتبقي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان qaala an tacbuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka qaala fa axbirni an saaca qaala ma almasuulu anha bi aclama min alsaaili qaala fa axbirni an amaarataha qaala an talida alammatu rabbataha wa an tara alxufaata alculaata alcaalata rigaa alshaa'i yatataawaluuna fi lbunyaani ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من سائلي قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه المسلم mbokku jullit yi jëlee nañ ci Omar bun Xattaab yàlla na ko yàlla gërëm mu ne bés dañoo toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaju sol lu weex tàll karaw gi kukk mu dalee fële ji ñëw xuus mbooloo mi yépp ñëw ba ci yonent bi sukk ci kanamam jël ay ñaari oomam sësale ko ci oomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël ay ñaari loxoom teg ko ci pooj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow Muhammad axbir ni anil islaam xamal ma lan mooy islaam yonent bi ne ko islaam mooy nga seede ne amul benn buur bu dul yàlla te Muhammad mooy yonentam ngay matal say waxtu juróom di génne azaka di wóor weeru koor di aj màkka benn yoon ci sa dund boo ko mënee mu dëggal li yonent bi wax mu dellu ne war ko yow muhammad fa axbirnii anil iimaan xamal ma lan mooy ngëm yonent bi ne ko ngëm mooy nga gëm yàlla gëm malayka yi gëm téere yi gëm yonent yàlla yépp bu ci xaajale kenn gëm keroog ba su pénc taxawaay bu yàgg bu metti boobu nga gëm ko waaye lu mu ci teg wa tumina bil qadari xayrihi wa sharrihi nga gëm ndogal bu neex ak bu naqari ci yàlla suñu boroom la jóge mu dëggal li yeneent bi wax mu dellu ne war ko yow muhammad fa axbirnii anil ihsaani xamal ma lan mooy rafetal yeneent bi ne ko rafetal mooy ngay jàmm yàlla ba jàpp ni yaa ngi koy gis wala boo ko gisul sax nga jàpp ni moom moo ngi lay gis mu dellu ne war ko yow muhammad fa axbirnii an saaxa xamal ma kañ la bésu pénc yeneen ci bi ne ko yow mi ma koy laaj ak man mii nga koy laaj ñoo ci bokk yam bésu pénc moom yàlla suñu boroom rekk moom moo xam kañ la waa ji dellu ne war ko yow Muhammad fa axbirnii an amaraataha xamal may màndargay bésu pénc yeneen ci bi ne ko bés boo demee ba gis ñi gënoon a ñàkk amuñu woon dara tey ñooy ëppalante ay étage nga dem ba gis jaam jur sangam mbokk jullit yi loolu mooy lan dangay am sa doom yàlla dénk ko wërsëg dangay ngay dem baragal ko lu mu def noonu la lu mu wax noonu la day def mbir moo xamante ni da lay leer ni kii lu mu def di yoon waaye da nga ci dëgg sa tànk ngir lan alal bi ko yàlla dénk moom daal day mel ni ku yor ko commandam rek fu ko neex mu dirige la fa yow yaay ji li ci gën a doyatuwaar mooy da ngay nekkal sa doom bu jigéen ci kër gi mu dem ba majeur ji wan ni moom léegi jànk la mën a la too ko dara soo ko waxee benn mu wax la fukk ba wër la buy wax ak yow ji yuux mel ni kuy wax ak moroomam ji la yónni yow yaay ji yow yaay topp ci ginnaawam doon surgam ji kóoti kóoti lu ne nga dugg ci lu ne nga génn ci moom fa mu toog fa lay toog du ko yëgal sax yaramam mbokku jullit ji foofu jaam jurul sangam nga dem ba gisatoo kersa kersa tumuranke du ci góor ñi du si jigéen ñi yeneen bi ne waa ji bés boo demee ba gis li yépp xamal ni yomal xiyaamati mu du bésu penc ngi ñii sa kanam jàkkaarloog yow ci la waa ji jug dem yeneen bi ne Omar waa ji fi ni kan la Omar ne ko qultu allah wa rasulu alam kii daal yàlla ak yenentam rek ñoo xam kan la yeneen bu tedd bi ne leen kii mooy jibril dafa ñëwoon ngir xamal leen seen diine muslim moo soloo xadis bi mbokk jullit yi xadis baa ngi noonu ñu jàngatee ci ñetti mbir rekk bi ci njëkk mooy jullit day julli képp ku dul julli rekk na jàpp ni moom nekkatul jullit ndax génnee na boppam ci ranwu jullit yi te julli dafa bokk ci juróomi ponk islaam yi ginnaaw ni boo seedee ne amul benn buur bu dul yàlla te muhammad moom mooy yeneentam lu ci tegu ngay matal say waxtu juróom kon julli lu am solo la ci buur bi allah subhanahu wa taala te keroog yomal qiyaamati mujj ba su penc yàlla balaa xool sa benn jëf sa julli lay njëkk xool sa julli bu baaxee rek sa lépp baax na waaye sa julli bu bonee rek sa lépp bon na kon nag mbokk julli ji nañuy faratal julli comme ni ñu faratalee lekk ak naan maa ngi koy ñaax sama bopp di leen ko ñaax ñaareelu mbir mi mooy bu yeboo ñun ñëpp nañ jekk te xam ne yomal xiyaamati mu di bésu penc ngi nii suñu kanam jàkkaarloog ñun ndax li fi yonent bi wax yépp ne mooy màndargay bésu pénc ñun toll nañ ci jamono boobu te ñu koy dund ku ne gis na ni léegi kersa amatul ker kersa tumuraanke na du si góor ñi du si jigéen ñi waajur yaa ngi jaamu seen doom yi doom yaa ngi toroxal seen waajur yi def leen seeni surga te li yépp yonent bi def ñu ne woon ci màndargay bésu penc la bokk ñetteelu mbir mi mooy jullit day gëm yàlla jullit day gëm yàlla bu mu metti rekk nga wér ko sa moroomu jullit comme yow nga naan moo ma um wala moo tëye sama wërsëg wala bu dul woon ak moom tekki naa déedéet loolu du yëfu jullit jullit pur pur laa wax de mooy ki nga xamante ni su neexee mu delloo yàlla waaye fi mu gën a méttee gën fa taree mu jëlaat lépp delloo ko buur bi allah subhanahu wa kooku mooy julli pur kon nag mbokk jullit yi nañu delloo suñu xel ci yàlla te xam ni moom rek moo fi nekk moom kese moom kot moom dong keneen nekk fi ku dul moom lii nag laa leen fi indiloon tey ci xadis bi lépp lu ci jub ñu gërëmee ko yàlla waaye lépp lu ci dëng ci jëmm ji taxawoon doon wax la allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad innaka hamidul majid aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokku jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bu tedd bi ñu buur bi subhaanahu wa taala boole muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi tey nag dañ fi ñëwoon indi leen waxtaan bu am solo di waxtaan kenn ci suñu yonente yàlla yi muy suñu yonente yàlla daawuda suñu yonente yàlla daawuda boobu nag mi ngi bokkoon ci bannu Israël yàlla defoon ko nabiyu def ko rasuul mu nekkoon tamit buur di àtte suñu yonente yàlla daawuda boobu yonente yàlla bii di yonente yàlla Suleymaan suñu yonente yàlla daawuda mii moo nekkoon waajuram yàlla nag dénkoon ko juróomi mbir bi mu koy dénk juróomi mbir yooyu mu ne ko yow yonente yàlla daawuda juróomi mbir yi ma lay dénk de boo ko matalee mooy sa mission man na waaye jàppal ne benn boo ci bàyyi eseg nga bi njëkk ci ndenkaane yi mu ne ko yow yonente yàlla daawuda fii ak demoo ba dégg ne man yàlla dee naa nga lijjanti ko ba mu wóor la sa sentiir gi nga takkoon di jaamu yàlla na gën a teeng loo jaamu yàlla xeeb ko ñaareelu ndenkaane bi mu ne ko yow yonente yàlla daawuda fii ak demoo ba gisatoo biddiw ci asamaan gisatoo mala ci àll ba gisatoo ndox ci géej wërsëg bu nekk sa tiis man ma yàlla maa koy joxe te foo nekk dinaa la fekk jox la ko maa fekk liir ci biiru yaayam di ko wërsëgal ba mu judd maa fekk jën ci biir géej di ko wërsëgal ba ngeen mën ko jariñoo yéen doomu aadama yi wa maa min dabbatin fil ardi ilaa alallaahi rizquhaa wa yaxlamu mustaqarrahaa wa mustawdaahaa kullun fii kitaabin mu biinin sadaxallahu lazim ñeenteelu ndénkaane bi mu ne yow yonente yàlla daawul feeg demoo ba dégg iblis dee nga lijjanti ko ba mu wóor la feeg demoo ba dégg ne iblis dee na nga lijjanti ko ba mu wóor sa yat bii nga téye de bu ko wéet ndax iblis kat saay-saay la dalay bett gaañ la juróomeelu ndénkaane bi mu ne ko yàlla daawuda feeg demoo ba gis sa bopp ci biir àjjana tëdd ci njoowaan yi jigéenu uuru ay nii di la joow bul wóoru sama ndogal ndax suñu maam aadama kat duggoon na bee génnaat kon yow mi ci bitti bul naagu ah mbokk yi ndénkaan yi nga xam ne moom la buur bi subhaanahu wa taala dénkoon suñu maam daawuda de mi ngi noonu waaye nañ jàpp ne ñun ñii lañ ko dénk ndax li tax ma ne ñun ñii lañ ko dénk xoolal li ci mel ni li mu wax ci iblis ndax iblis kat defe naa ne du masa dee kon nañ yokk suñu jaamu yàlla di gën a muslu ci saytaane xoolal ci wërsëg lu ci mel fii ci Sénégal fuñ toll suba ba ngoon ñu ngi xëy naan wërsëg wërsëg suba ba ngoon di dem ci sëriñ yi di ci mbam ci maamun yi fu nekk ñu naan wërsëg yaakaar ne wërsëg yow yaa ko mën a jox sa bopp te xanaa dégguñ li yàlla wax ci aayam bii wa ma min dabbatin fil ardi ilaa alallaahi rizuha wa yaxlamu mustahaha wa mustawdaha kullun fii kitaabin mubiinin sadaqallaahu lazim yàlla buur bi subhaanahu wa taala mi ngi wax foofu ne man wërsëg wala nga jël sa bopp teg ko ci place yàlla ndax alal daraja ak mbooloo benn bis yonent bi mës na toog ak ay saxaabaam ñu ñaan yonent bi ñaan ba pare mu ne yàlla na yàlla nangu ñaan benn saxaaba ne ko ci barke yonent bi yonent bi ne ko déedéet boo leen di ñaanati dee leen ñaan ci yàlla kase ndax xamoon na ne xamoon na jikkoy doomu aadama xamoon na ne doomu aadama dinañ toll ci jamono boo xamante ne nii dinañ ñaan ci yàlla dong ñu dem ba si biir ñu ñaan si yàlla ak yonent bi ñu dem ba ci biir ñu ñaan ci yàlla yonent bi ak nit te toll nañ jamono boo xamante ni nii nii ñaanatuñ ci yàlla ñaanatuñ ci yonent bi ci nit lañuy ñaan nit dina am soxlaam julli ñaari rakka ñaan yàlla ne yàlla yàlla nga ma may lii yàlla may ko ko mu wëlbatiku gërëm keneen nit dina ñaan yàlla yàlla may ma oto yàlla xëy may ko oto bi mu jaarale ko ci beneen nit mu wëlbatiku gërëm kooku te xamul ne yàlla moom mooy jël bu la waree may dara mu jël ko teg ko ci loxoy keneen mu jox la ko kon nag lépp lu ñu am nañ ko sante yàlla xanaa déggoo leen li yàlla wax ci alxuraan inna lazina kafaroo min ahli kitaabi wal mushrikina fii neer jaanama xaalidiina fiiha ulaykum sharul bariyati ñi nga xamante ne dañoo weddi bokk ci ñooñ téere tey bokkaale yàlla ñooñu buñ dewee safara lañ jëm te ñooñu ñoo gën a yées ci nit ñi nit dig la àjjana ba nga bàyyi ba nga bàyyi yàlla jël kooku loolu baaxul te ñun ñëpp xam nañ ne yàlla moom mooy borom àdduna mooy boroom alaaxira ségam rëbës bii rek mu nekk ci àdduna bi nga xamante ne ay gardien ñoo fa nekk kenn amul fit dem fa dangay génne benn prisonnier asamaak alaaxira bañ jëm nga xamante ne yàlla moo fa teg ay malaakaam kon nag mbokk yi nañ delloo suñu xees si yàlla te xam ne yàlla mooy borom mbir yi lépp luñ am yàlla moo ñu ko may lépp lu ñu war a am yàlla moo ñu ko may nañ ko gërëm te bañ a gërëm kenn asalaamualeykum wa rahmatulahi maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya rabbi ya rabbana zidni hilman bi haqqi shahidallahu anhu la ilaha illa huwa al malaikatuhu wa ulul ilmi gahiman bil hissi la ilaha illa huwa al aziz al hakim yéen sama mbokku jullit yi amma baxda assalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñu bokk wax alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi salla abadan ala lazina uda abadan alhamdulillahi hamdan kasiran taiban mubarakan ila yawmi ndax nag mbokk yi sant yàlla du doy rawati nag bi ñu mayee ñu def suñu première édition ba tey jii ñu ngi ci si suñu sixième édition kon kooku lu ñu ko sant rek doyul mbokk jullit yi tey nag dama leen andiloon kenn ci saxaaba yi nga xam ne ñoo daroon suñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lu nekk dañ nañ ko ci diine ji lu nekk def nañ ko ci diine ji fu nekk taxaw nañ ko ci diine ji kenn ci ñoom kooku rawati nag muy der bu ñuul ñu naan ko Bilal ibnu Rabah Bilal muhanzinu rasul Bilal xadimu rasul Bilal sahibu rasul ilal islam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a dugg ci lislaam ji te jege woon yonent bi lool bilaalun alxabash ridwanullahi alayhi yàlla yàlla gërëm ko moom bilaal mu nekkoon doom ci Rabaa ak Xamama moom bilaal mu ngi juddoo ci réew mu ñuy wax xabashi réew moomu mu ngi nekk ci Éthiopie bokk ci Afrique réew nit ku ñuul ci réew moomu mbokk yi am na fa benn buur bu tuddoon Najaasi mu nekkoon buur bu baax bu yëwan bu mënoon dalal gan moom Najaasi booy seet sax sunu yonent bi jotoon na ko may ñaar ci ay soxna li ci jëkk mooy Mariya Xibtiya mu jotoon a am ak yonent bi benn bant ñu naan ko Ibrahima ibnu Rasul ka ca topp di euh, Ramlatu ibnu bintu Abu Sufyaan nekkoon na doom ci ku ñu naan Abu Sufyaan booy seet ci abasi boobu ki ñu naan Abrahata te dogu woon ne day daane ji yàlla bi moom fa la cosaanoo kon xabashi marqué na lool tariixu islam Bilal foofu la cosaanoo Bilal nekkoon na jaam ci ku ñuy wax ci ku ñuy wax ah, Umayata ibn Xalaf moom umayata ibnu xalaf xeetu mbugal bu ne woon na ko bilaal umayata daan na bàyyi ba naaj bi tàng mu futti bilaal jaaxaanal ko ci naaj bi cëram bu ne mu ubbi ko takku ko ci doj mbokk yi loolu doyu mu ut ay xeer tegle ko ci dënn bilaal ba boole ca di ko cawlu bilaal dafa daan yuuxu boole koog ay kaddu bilal la nga naan ahadun ahad fardun samad la walidin wala walad wama lahu kufuwan ahad loolu mooy lan mbokk yi bilal la ngay yuuxu naan yàlla kenn la yàlla kenn la jurul kenn te kenn juru ko amul baay amul yaay amul maas amul dendandoo kenn rek la Bilaal dafa daan yuuxu ba ndeysaan làmmiñ bi dagg dootu mën a wax ma nga naan aha aha aha yàlla kenn la yàlla kenn la yàlla lu nu dóor Bilaal di gën a jibal kàddoom ya ndeysaan lislaam rek moo ko jar ndax yàlla subhaanahu dafa ne ci alxuraan ci suratu imran inna diina inda allahi l islaam kon mbokk yi loolu Bilal def jàngat la ci ñun jullit ñi lu mu metti metti lu mu tar tar tar bu ñu mos a weddi yàlla na nu dëgëral sunu ngëm te sax ci bu ko defee nag am na bés yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy faxaalun li maa yàlla mooy def lu ko soob mu yabal kii di Ababacar Sadiq muy doxantu ndeysaan ba tombee ci xeetu mudal mbugal yooyu ñuy mbugal Bilaal keroog Ababakar mer na ndax dafa yulbu kii nga xam ne mooy sangu Bilaal ba di Umayata ibn Xalaf ne ko ee eh, yow Umayata ibn Xalaf naka la doomu aadama di tege yii xeetu mbugal moromu doomu aadama ndeysaan naka noonu Umayata xool ko ne ko dafa dugg ci lislaam yi bu weddee rek ma bàyyi ko naka noonu ah, ah, Ababacar Sadiq daal di mer ne ko léegi sax dama bëgg nga jaay ma sa jaam bii di Bilaal Umayata xam ne da ko nar a jënd goreel ko mu taxé ko lu seer waaye teewul Ababacar jënd Bilaal bi mu jëndee Bilaal ndeysaan Bilaal yaakaar ne Ababacar Sadiq day continuer def ko jaamam waaye déedéet Ababacar dafa xool Bilaal xolu yërmande ko ndeysaan ko ah, la ci toolu lislaam ndeysaan naka noonu Bilal yi xool kaw asamaan daal di sant yuuxu sant borom bi subhanahu wa mu ne tourné xool Ababacar Sadiq dellu santate Ababacar Sadiq mu ne jees xool yonent bi daw ba ci moom sukk ñaari oomam ci suuf daal di tàllal ñaari loxoom yi ndeysaan ne ko eh yow mi yàlla yónni jënde naa la sama ruux te bu neexa yàlla dinaa taxaw ci tere yàlla yi te dinaa liggéeyal lislaam ndeysaan suñu yonent bu taaru bi ndeysaan ca taaram ba nga xam ne kuy taaru moo la gën a taaru mu xool Bilaal daal di muuñ muuñam mu sell ma ndeysaan daal jël loxoom yi ndeysaan raay ko ci yaramu bilaal bi mu mel ni anesthésie loolu doyul ndeysaan mu ne ko bilaal yàlla yaatal na sa xol bi te dugal na ci lii di lislaam ndeysaan bilaal daal di yuuxu tudd baatu seede yi ci lislaam yonent bi yamu ca de mu xool bilaal ne ko bilaal yàlla takkal na la garaat ndax nag dara gënul neex fu yonent bi taxaw sallallahu alayhi wa sallam bilaal taxaw fa fu yonent bi ne euh, sami allahu liman amidahu bilaal ne ko rabbana walakal hamd bilaal ak yonent bi ca màkka bilaal ak yonent bi ci gàddaay gi bilaal ak yonent bi ca medinatul munawar bilaal ak yonent bi ca ca ca medinatul munawar bilaal ak yonent bi ci fatku màkka ndeysaan mbokk yi ma ñëwal leen nag tuuti ci fatku màkka ndax buñ nee fatku màkka nit ñi déggee ci ne ubbite màkka la waaye déedéet buñ déggee fatku màkka mooy ubbite kaaba gi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ba ko yàlla gàddaayalee ne ko na nga dem euh, Medinatu Munawwar ba mu fa defee fukki at ndeysaan yàlla dafa yebal Jibril alayhi salaatu wassalaam ne ko demal nga ne yonent bi mu dellul ma fi nga xamante ne mooy màkk ga mu génnoon raxasal ma kaaba gi na mu tojal ma fa lépp loo xam ne xërëm la ca kaaba ga ndeysaan yonent bi daal di ànd ak délégation délégation boobu Bilal mi ngi ci biir bi ñu àndee dem ba ne sarax naka màkka inde jigéen ji ñu naan inde nga xam ne histoire ci l'islam ku nekk dégg na ko moom dafa tiit keroog ànd ak jëkkëram ja Abu Sufyaan ñu daal di daw utali yonent utali bàyyi taxu yonent bi di Abbas ne ko eh yow Abbas ana xew tey ba gan yi dugg ci biir màkk ndax yaakaaroon nañ ne yonent bi da leen andil xare waaye déedéet ah abbas ne ko ah tey moom tuub rek mbaa dee tuub rek mbaa dee ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi wa ne saraax ci kaaba gi moom Alioune Badara Sadiar jël seen jaasi yu kaam kéemaane ya ndeysaan commencé ko ci suuf di toj xërëm yi di toj di toj ba xërëm ya jeex mu daal di jël ba ñu jël seen yonent bi jël ja seen ju kéemaane yootu xërëm yi nga xam ne ñoo nga ca di ko utali toj ndeysaan loxo ba jotu ko Alioune xool ko ndeysaan ne ko yow mi yàlla yónnee xaaral ma tumoom la ah foofu yonent bi xool Alioune ne ko Alioune Alioune attanooma Alioune xanaa xamoo ne doole fanweeri waxambaane Alioune mooy doole benn euh, fasu naaru góor Alioune xanaa xamoo ne doole fanweeri fasu naaru góor Alioune mooy doole benn kuyel jinne Alioune xanaa xamoo ne doole fanweeri kuyel jinne Alioune mooy doole fanweeri waliyu yàlla Alioune xanaa xamoo ne doole fanweeri waliyu yàlla Alioune mooy doole benn yonent yàlla alin xanaa xamoo doole fanweeri yonent yàlla mooy sama doole man rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alin ndeysaan foofu alin xool yonent bi daal di sangeentalu ndeysaan xanaa danaan tey lan moo ciy pexe ndeysaan suñu yonent bi xam ne deret ji daw ci moom mooy daw ci Alioune Badara Sadia mu rocc suñu mbubboo gi roof ko Alioune Badara yëkkati ko ba ci kaw Alioune jël jaa seen ja ci similaak sàlla mu rajaxe lépp lu fa nekkoon ci xërëm yonent bi gaawantu ci pel ko mu taxaw ci kaw suuf Alioune xool ne ko yow mi yàlla yónni boo ma yéexoon a wàcce tarfatil ay ni sama loxo yi laal bi dee ca kaw asamaan juróom-ñaar bopp yi ah loolu kéemaane la waaye nag kii di Alioune Badara bu waxee loolu ñu war koo gëm ndax nag yàllaa ko xool yonent bi moo ko xool ne ko Alioune man mii maay nekku xam-xam waaye yow yaay buntu ba kon bu waxee loolu ñu war koo gëm ndeysaan boobu fekk na màkk yépp ngi ne dayyi wër kaaba gi Omar bun Xattaab ba ngi taxaw ci buntu kaaba gi ne leen tey jii ku bëgg sa jabar teññ la wala sa doom nekk jëriñ tey na ma jege si ku ne xam na Alioune Badara ak Dia Sène ndeysaan ña màkk yëpp ne day kenn ñemewu la jege si xonk buntu kaaba gi xonk jural ay arab mennum Bilaal moo nekkoon nit ku ñuul ci seen biir Bilaal daal di bëtt arab yi summi yëreem sànni ma ngay xaaj nit ñi bilaa la ngay dem di yéeg di yéeg ba ca kaw doj bi naan ashiru aswat ñi jot a siyaare bi sallallahu alayhi wa xam nañ doj bi may wax mu yéeg ci kaw doj bi ah loolu njàngat la ndax nag jaam bu ñuul bu yéegee ci kaw xeer bu ñuul abdul aswat ci kaw ashrul aswat foofu am na lu fa yàlla di jàngale ay arab rek wër ko kon xanaa grade bi yonent bi doon waxal ñi noonu ndax lan tudd baatu seede yi ci lislaam mbokk yi bu noddu daganoon tey jii dinaa noddu ngir ñu fàttale ko Bilaal ndax nag lu nekk def na ko ci diina ji lu ne def na ko ci diina ji fu ne taxaw na ko ci diina ji moom Bilaal ibnu Rabah mu jar na fu noddu tee teewatee fu noddu jibatee ñu teewlu ko ngir di ko fàttali ko moom mu ngi juddoo Abachi moom Bilal ngi gaañoo dëkk bu ñuy wax Dimasqa ñu denc ko dëkk bu ñuy wax Sam mbokk yi lii laa leen andiloon lu ci jub na jàpp leen ne yàlla la lu ci dëng man mu gàttu àll wi mii la may sant jullit ji fi teew yépp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 ginnaaw gu ñu santee yàlla di julli ci sang-sang yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam ci nuyoo bu ñu buur bi subhaanahu boole ma leen di naan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa taalaawu wa barakaatuhu maa ngi do dellu di sant sunu borom moom mi ñi may fekkee ak tal ba ren ñi mun a taxawaat fii di def sunu sixième édition yàlla nañ ko fi teew ay at yu bare bare bare bare may nuyu sama baayu daara di Al Mansour Sow ak njabootam di nuyu sama ustaas Mohamed Mbay ak njabootam di nuyu waa juma Nations Unies depuis ci imam Baba Gaaj monsieur Ñing ba ci Lugmaan ndax dañ ñoo yaatal loolu ci jumaa ja di nuyu sunu président gox cité Nations Unies di Adja Aram Gueye di ko sant bu wér a wér di sant sama borom kër ndax def ma yombale loolu njàng mi di sant samay njaboot di sant yaa seydaa yi fi toog ak mbooloo mi fi toog di sant waa presse yi mbokk yi ren dañ leen indil faatu yonant bi sallallahu alayhi wa sallama mu doonoon nag tey lu tiis pour ñu nettali leen ko ndax moom yonant bi sallallahu alayhi wa moom la sunu borom joxoñ ne moo gën ci mbindeef yi lépp lu mu bind moom yonant bi sallallahu alayhi wa moo tax ndeysaan ginnaaw bi ko feebar bu gàtt tëraloon yem ci diiru fukki fan ak ñeent ba tax na mbokk jullit feebar boobu moo newoon sababu faatuwam moom rasulillahi mu ngi faatu ci weeri gàmmu ci fukki fan ak ñaar ci bésu altene cay altine bu metti cay bés bu tiis bés boobu mbokk yi bilaal nodd na nabi génnul salaatu nañu nabi génnul ma nga tëdd ci néegu yaay Aïcha waaye bi nabi xoolee kaw xool suuf xam ni tey jii il faut mu dem jiite julli suba googu il faut tey mu dem defal saxaabaam yi il faut tey tey jii tey mu génn dem jàppale saxaabaam yi l'islam bi di sinu diine nabi daal di góorgóorlu ñu jàppoo ko di ko yóbbu ci jumaa ja Ababacar Saddiq demoon na bay waaj taxawal julli mu daal di gis lumière buy bal ci biir jumaa ja xam na ne bii lumière du sondel du lampe du torche bii leer leeri nabi Moustapha la nabi dugg si na jiite na julli gi bim ci noppee mu daal di yëkkati kaddu sunu borom al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum al islaama diina nabi leen tey laa leen di matal seen diine waaye tey laa leen di mottalil seeni xéewal waaye tey jii tey laa leen di gërëmal seeni lislaam bii di seen diine ginnaaw bim ci noppee ñi daal di ko jàppoowaat dem tëral ko ca néegu yaay Aïcha nabi daa di defaru ne malakal mawti bisimilla malakal mawti dugg si ne asalaamualeykum ya rasulallah sa boroma ma yónni mu ne nga tànn faatu léegi dem aljana mbaa nga xaar ba mujjum jamono faatu dem aljana nabi ne ko alaaxuma rafiwun ala tànn naa léegi malakal moo di tàllal loxo ma ba ca Karbala tibb suuf si ñëw tàllal ko rasulillah mu ne ko sa sët bii toog di Ousseynou ci suuf si weex si lañ koy faat ay ne yaa Muhammad baat bi may dégg nii man musumaa dégg bii baat bii baat du baati Jibril nabi ne ko Aïcha noppil nabi woowaat Fatima mu ne ko sëggal Fatima ñëw sëgg mu ne ko sama borom yónnee na ndaw waaye tànn naa léegi Fatima siggi jooy mu ne ko sëggaatal Fatima sëggaat mu ne ko waaye samay njaboot yaa may njëkk fekk si waaye fileg maa ngi fi bu ko wax kenn nabi na malakal mawti ana jibril mu ne ko bàyyi naa ko si asamaani juróom-ñaar mu ne ko ndax mun nga koo xaar malakal mawti tafuwaat ci bunt bi jibril daal di bëtt juróom-ñaari asamaan ñëw ne ko yaa rasulallah sa borom ubbil na la juróom-ñetti buntu àjjana yépp wiise nañu li waawul xamdu sa ruugu tedd gi rek lañuy ñuy xaar tabbal dugal aljana allah akbar bi ne ko waxuma juróom-ñetti buntu àjjana yi waxuma li waawul xamdu waxuma fatima waxuma useynu waxuma asan man sama xeet mi lay wax sama xeet mi ummati ummati ummati naka la sama borom di def ak sama xeet mi jibril ne ko ah xalaa ma dem laajal la ko sa borom jibril bëttaat juróom-ñaari asamaani borom bi ne ko boo demee nga ne ko wala sawfa yutiika rabbuka fa tarda nabi bëttaat jibril bëttaat juróom-ñaari asamaan si ñëw na nabi sa borom nee na wala saw fa yuttiika rabbuka fa tarda dina la may di la may di la may ba nga gërëm allah akubar kenn du nabi Moustapha foofu fu mu tëdd feebar bi di gën a tar métit bi di gën a tar néeg ba am na benn mbokki Aïcha bu fa newoon sax socc nabi ku bëggoon socc la daal di joxoñ socc gi ak baaraam yi tedd yi Aïcha jël socc bi damm dugal ko ci gémmiñu nabi ah mbokk yi boobu ba ñuy nagam nañu mënatu ci woon dara Aïcha daal jël socc gi yéy yéy yéy dugal ko ci gémmiñu nabi di ko ko bombal booba yaram baa ngi tàng jër ba Aïcha dafa jël benn këll def fa ndox di fa dugal morso di ko teg ci ci kaw nabi waaye saa yu ko fa tegee rek morso gi day daal di wow koŋ ngir tàngaayu nabi Moustapha waaye nabee gore foofu mu tëdd feebar bi di gën a tar muy gën a metti mu ngi naan aleykum bi salaati wa ma malakat aymaanukum aleykum bi salaati wa ma malakat aymaanukum aleykum seen julli juróom te ngeen yërëm ñi ngeen ilif na ngeen saxoo seen julli juróom te ngeen yërëm ñi ngeen ilif metit bi di gën a tar feebar bi di gën a metti Aïcha jël na nabi jël bopp bi teg ko ci kaw poocam nabi di naan allahumma rafiul ala allahumma rafiul ala allahumma rafiul ala rek mbokk dog allah akubar allah akubar allah akubar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi keroog la asamaan jaxasoo keroog la àdduna lëndëm keroog keroog la saxaaba yi jaxle keroog la saxaaba yi wéet keroog la saxaaba yi tumuranke keroog mbokk la tumuranke juddu keroog lépp lu amoon ruu lu amutoon ruu yëgoon nañu tey rasulullahi nekkatul ana Ousmane tiit ba la fañ ana Alioune tiit ba gumba ana jàmbaaru lislaam bi Omar yor jaaseem na képp ku ne Muhammad faatu na ma takkali sa bopp ak sa baat ana Babacar Saddeex ana lumière madinatul munawara bi fay na ana ku koy ñaaral ci kaw suuf waaye keroog jooju la ko ñaarale ci kaw suuf muy Ababacar Saddeex keroog la mat ndaw mbokk yi mu taxaw ne na ma ñëpp fekk si jumaa ja Ababacar Saddeex dem teg benn tànkam bu ko tegaat beneen tànkay nagam ne rukk ci suuf ne na ma ñëpp fekk ci suuf ñëpp fekk ko ci suuf ba mu des jàmbaaru lislaam bi taxaw rek yor jaasem képp ku ne fi Muhammad faatu na ma taxali sa bopp ak sa baat Ababacar Saddeex ne ko Omar si suuf Omar bañ si la Babacar Saddeex daal di yëkkatu kàddoom man kaana yaabudu muhammad fa inna muhammad kad maata wa man kaana yaabudu laaha fa inna laaha hayyun laa yamuutu képp ku doon jaamu muhammad muhammad faatu na waaye képp ku doon jaamu sunu borom yàlla yàllaa ngi fi du fe musa jóge ba faw ba faw ba faw mu daal di feelu aayam ba wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min xable ir rusulu afa immaata aw qutilan kalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayki falan yaduura allaha shay'an wa sayajzi llahu shakirina mu ne muhammadu yonente la comme fi jotoon a jaar yonente yooyu nu ñu faatuwee muhammad mii tamit noonu lay faatuwee ba tax na bu fi jógee képp ku dellu ci limu mu newoon maa ngi lay xaar boo ñëwee dinaa la duma duma yi metti ah si la Omar daal di taxaw ne ah kon man aaya bi li ma koy jàng yëpp xaw woon dayoo gi maa ngi soog a dégg aaya bi kon Muhammad day faatu si la Omar daal di nangu ndogalu sunu borom waaye mbokk yi anam mbaamam bi di yaafuur taxaw na sama ginnaaw gi sagam ngeen ci mbindeef dootul yëgati man sama kaw man benn mbindeef dootul yëgati sama kaw noonu la mbaamba dawee dóor bopp bi teen ba daal di fa daanu dee ana saxaabam ju baax jooju nekk ci toolam ba di béy doomam ja daw ne ko pàpp yëg nga lu xew mu ne ko ay doom lu xew mu ne ko Muhammad faatu na noonu la sandee lu mu yor sukk jublu penku tallal ay loxoom sunu borom ne yow sama borom bu dee sama doom ji lu mu wax dëgg la sama bët yi dootul tegati ci jëmm ju du tedd tedd gii yàlla bu mu tegati ci benn mbindeef ba keroog kooku muy génn àdduna dañ ko daan womat mbokk yi kon faatu yonanti baa ngi nii ñu nar ci jëlee ay jàngat ñun xeeti rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax keroog bi mu newoon ci lali sukkuraatam xalaatul soxna xalaatul doom xalaatul sët lu mu doon xalaat xeetam xeetam ummati ummati ummati kon nag ñun ñii di xeetam nañ leen ko delloo njukkal ci naka ñu saxoo ci alxuraanal karim ak sunnaam yum ñu fi bàyyil ndax bu ko defee mu mun a am ndam sunu kanam bu ko defee mu mun a kontaan ci xeetam ndaxte moom li mu war a am am na ko ba pare nañu góor góorgóorlu mbokk yi lii laa leen indi lan lu ci dëng ci jëmm ju xeebu mii la li ci jub nag ci buur bi subxanahu wa la may baanu ñëpp àq di leen balu àq conférence yi yàlla nañ ko fi teew ay at yi bëre bëre bëre bëre di sant ñëpp nag ñu fi teew wasalaam. lu xati bët ya dagg tuñ ya xar dënn ba yóotu res ba sex di ko yëy di ko yëy di ko yëy ba gémmiñ gi fuur ak deret mu na bi ne ko puuf sa reesu bàyyi ni nabi yëngal bopp ne ko su ma rusul woon sama borom yow xam sa fii laa lay bàyyi bàyyi ma xiyam soxna suñuy wax safiyatu di jigéen ci xam sa yónni doom ja Zubeyru ne ko dawal ni yaa Rasulillah mu may ma ma xool Xamsa xam nabi ne ko demal ni sa yaay Xamsa mii góor mënu koo gis waxuma laa jigéen Safiyatu yónnewaat doom ja nabi ne ko neel ko mu egsi ci la Safiyatu wat robb ba di jéggi néew yi di jéggi néew yi di jéggi néew yi ba jàkkaarloog Xamsa sëgg ci leex bi fóon ne ko tig taxayaan wa mayaan yow mosoo tax di ji gàcce di ji gàcce di ji gàcce ba jàkkaarloo rasulillah yàlla la suñu borom fay àjjana waaye ci xare boobu bul fàtte ci lañu xaañewoon yonent bi ca Uhud ca lañ xaañ yonent bi damu bañu gaañ ko ci tànk ba sànni ko ca kàmb ga ca la waxee woon wax ju siiw ja kay fa yaf loxo xaw mun faalu xaasa bi nabi wéeru xeet fu ñuy texee wéeru xeet fu ñuy demee àjjana ginaaw bi ñu defee li seen yónneent yàlla yàlla ni kon la laysa laka min alhamri shay'an dem àjjana ak dem safara mosul nekk ci loxo ku ma yónni dem àjjana ak dem safara ci sama loxo la nekk man mi di sa borom waaye keroog ba defeetu rasulillah bi saree keroog la ubud xëy parfum misk bi mel ni asamaan si mooy taw parfum misk ndekete yow deretu rasulillah bi mooy xëy lu mel ni parfum misk ci uxud ci la tal xata jaaxaan ci kaw nab yi tàllal ñaari loxo yi bal bu ñëw fitt bu ñëw mu katt fitt bu ñëw mu katt ndax la nabi moo ne woon deretu rasulillah suuf àttanu ko keroog la iblis kontaan di jax jaxee xolu jullit yi di yuuxu Muhammad dee na Muhammad dee na jullit yëpp fëx ñàkkutoon xet ci naaju Uhud tàng defe ne islam fay na ñenn ñi ñu ngi jàppalu place ci rangu yéefar ya defe ne islam jeex na ñeneen ñi ña yi daw ci naaj bu tàng bi taxaw di wañ seen yëre muy siit ak ñax ñuy weñ seen yëre yi muy siit ak ñax waaye yàlla du mës a seetaan jullit ci la yónni jibril mu bëtt juróom-ñaari asamaan mu ñëw jàkkaarloog sàppe jullit yi di wañ jaasi ja muy siit ak deret muy weñ jaaseen ja muy si teg deret mbokk jullit yi loolu mooy lan mu ne leen suñ borom nee xeex bi jeexagul te bu leen fi jant bi feex ah jullit yi takkaat seen ndigg jàppaat confiance xam ne yàlla bàyyeeku leen waaye xare boobu it keroog la suñu borom jàppale jullit yi dellu siwaat ndax ci la leen jàppal weer bi ci la leen jàppal jant bi ngir ñu eggale seen yéene keroog Uhud ndax buñ fàttali jàpp bu njëkk ba ma leen ko jàppale woon ba keroog yonent bi di rañaan di jële jullit ci yàlla suñu borom ñaareel ba mi ngi leen ko jàppale woon ca biir jëngoon tak Seydina Aliou waaye kon tey yii mooy ñetteelu jàpp-jàpp fan ci Uhud ngir lan jullit yi mottali seen yéene kon mën nañ wax ni suñu borom du mës bàyyi julli la xanaa dañ naan tey dinga nga suba yëpp mën ngaa perte loolu moo fi am waaye nag kon ñu def ñetti jàngat jàngat yi waral suñu thème bi tey ñetti jàngat yu am solo ndax xuxut bi war nañu fi ñuy teg suñu tànk première jàngat bu njëkk bi mën nañu wax ni ah on a on a perdu la bataille waaye perte ñu la guerre xeex bi moo doon lan ngir islam taxaw te kat xeex bi li mu doon métti métti bi mu jeexee yéefar yu bari dañoo tuub dugg ci islam ana hind ana ikramata ina xaali ibnu walid ñoom ñi nga xam ne ñoo doon xeex diine ji yore woon guerre nga xam ne luñ ñàkk ci Uhud ñoom ñoo ñu ko xay ñoom ñépp dañoo mujj dugg ci islam kon mën nañ wax ni ñàkk nañ xeex bi waaye am na ndam ndax lislaam taxaw na ñaareelu xare ñaareelu jàngat bi mooy nekkee ñàkk a dégg waxu kilifa dina la yóbbee lu ne na juróom fukk yooyu yéegoon ca kaw montagne ba buñ déggoon ndigalu euh, yàlla bi ba duñ asamaan dem ba duñ wàcc suuf kon xëy na duñ leen mës a gañe kon mën nañu wax ni ñàkk a dégg waxu kilifa dina la kon yéefar yi leen mës a bett ba leen di gañe ñetteel ba lu am importance nag ci thème bi moo di xeetu bokkaale bi ci feeñ ndax suñu borom du mës a nangu ko jël place am xoolal yónnent yàlla bi mu yónni woon keroog bi mu jaaxlee ba jaxasoo mi ngi tëkku yéefar bi naan leen dem aj naan leen biu xeet fu ñuy texeeti biu xeet fu ñuy demee àjjana ginnaaw bi ñu defee lii seen yónnent yàlla waaye gis ngeen ni ko yàlla wañee ne ko lay sa laka minal amri shay'an man mii maa yore àjjana dem àjjana ak dem safara nekkul ci loxo ku yoon yónni kon mbokk jullit yi du mës a nangu bokkaale xëy na dañu coyoon jox leçon ca ba ca ca Uhud ngir lan ñu tiire ci ne yónent bi yóbbu di ko yàlla di yoon yoon yónni jox ko pouvoir yóbbu kenn àjjana pouvoir yóbbu àjjana mu ngi des ci suñu borom kon jàngat bu am solo mu ngi noonu ci ñetteelu point boobu kon mbokk jullit yi umu dangoog am solo lool ndax ñu jàng ci suñ mbokk imaam na ma yàlla baal suñ mbokk kilifa yi fi nekk di ñu dig àjjana koo waxal mu ne la maa yor sa àjjana ñooñu luñ leen di def ginnaaw suñu borom nangul lu ko yónnent yàlla bi mu yónni woon ne ko dem àjjana dem safara nekkul ci loxo ku ma yónni kon dem àjjana dem safara ndax mën naa nekk ci loxo jaamu yàlla kon jàngat bu am solo ngi noonu mbokk jullit yi uwutandoo am solo lool ñuy ñaan yàlla fekkee woorul jàmm salaam yàlla nangul ñu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala nuyu naa leen nuyu bu ñu yàlla boole muy asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa mbokk jullit yi dafa am lu ma leen bëgg a indi ñu jëriñoo ko ngeen jëriñoo ko ma jëriñoo ko te yàlla rekk tax muy xare xaybar la ko sabab yeneen bu tedd bi suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu gàddaayee dafa toog ba mu am fa diir mu daldi di waaj mook saaba yi muy junni ak juróomi téeméer ñu ne dañuy dem umra ñu demee ba ci yoon bi ñu gàttandu leen ne leen ren du ngeen mën a dugg Màkka foofu ñu leen gàttandoo mu ngi tudd benn Carrefour la ñu ne leen du ngeen dugg ren màtt ah coono ñëw na naqar ñëw na mettit it ñoom ñëw na ndax ak jullit day bu waajee ab yonentaam ngir dem umra ji boo ko fommee am na lu ko metti waaye yàlla dogal suñu sang bi Seydina Muhammad ànd na ak soxna su baax suñuy woy Umu Salama mu daal di ne ko soxna si day mbugalum yàlla dana wàcc ci ñun ndax dañ ne du ñu dem màkka du ñu dugg màkka ma ne saaba yi dañ leen wattu idée waaye ñoom day dañoo déng déngaay dañoo xaw a am lu leen naqari mu ne ko sang bi yow mi yàlla yónni dama nga toog watu bu watu ñoom ñëpp daañu wat ah jabar ju baax dina doon ndey dina doonu jigéen dina doon jabar yàlla dogal suñu sang bi Seydina Muhammad dal di nangu toog watu saaba yépp dal ah xol rek la yàlla di fay yàlla ne leen dem xaybar ngeen ubbi ji tataya ah ñu daal di ëlbatiku nag ut xaybar kontaan lool nag ba ñu demee Xaybar nag def nañ fa diir ah Seydina Omar ñëw di waxtaan ak suñu sang bi mu ne ko suba dey ku yàlla gërëm ak yonentaam danañu ko jox daraakoo yi pour mu yàlla dogal ba set Seydina Omar a fa jiitu ndax kat yàlla gërëm ak yonentam moom wax dëgg yàlla ku jara sàpp la ah yàlla dogal ñu toog ba mu yàgg mu ne Seydina Omar ana ko ah Seydina Alioune dafa wànneen bët yi day métti toogaat ba ko dama ana Alioune mu ne ko Alioune dafa wànneen bët yi day ku ne waa ma Alin daal di woo Alin Alin ñëw na suñu sang bi Seydina Muhammad yëkkati loxoom ya ak loram yu am njëriñ ya teg ko ci xar kanamu Seydina Alin bi bët ya gën a leer lam doon gis bët ya gën a gis lam doon gis mu yëkkati drapeau bi teg ci loxoom ne leen ubbi leen xaj tey suñu gaynde mooy dal di coxu nag duggat saaba yi duggat gaynde mbooyu topp ñu ba ñu demee Seydina Ali soxlawul dara tatta bi nga xam ne fa la seen buur ba marxab ne fa la Seydina Ali soxla ba mu yeggee dafa jël bul xaar dóor ko ca tata ya tata ba tasaaroo ah fekk na ko jàmbaar mu jóg nag ñu jëflante bu Seydina Ali rey gaynde yi dugg ci biir tata yi tàngul lool nag maasale tata yi tata yi jeex tak ñu ëlbati yàlla ne ah Muhammad a nga ne rasulullahi wallasiina mahau arshidau alal kufaari ruhamaahu baynaahum ruqahan sujjadan yabtahuuna fadlan min allahi wa ridwanan fi wujuhihim min asari sujuudi saalika masaluhum fi tawraati wa masaluhum fil injiili ka akhraja sat'aahu fa aasarahu fastaxlasa fastawaa alaa suufihi yuhyi suraaha di yàqe mu ne suñu sang baa nga nee Muhammad ak saabaam yi bëgg ndamab lislaam di xeex ngir lislaam di royante ngir lislaam di sujjóot di jaamu seen borom di rukkoo ba seen xar kanam ya def léegi moom mii day lu yëkkati lislaam ak lu yokk lislaam moo ko tax a jóg moo ko saaba ah ñuy sant suñu borom ci wax jooju mu wax ndax suñu sang bi ndama lislaam rek la doon woo saabaam yu màgg yi ndama lislaam rek lañ doon wër kon lii lañ leen indiloon ci xare xaybar xare xaybar nag kenn toggu ko luñ leen faye la dañ leen koo fayee mais kenn togg lañu bëggoon a defi moo matul yàlla jox leen lu ëpp loolu kon mbokk yi maa ngi leen di nuyu surtout daaray xar maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal fa ngeen bëgg a yegg ci lislaam yal na leen fa yàlla yàlla mbokk yi maa ngi leen di yëgal ne soxna alimatu mbàkke mu maam maaram mbàkke ak soxna ame gay mu amat gay ñu ngi ci baas bi te yàlla rek moo leen man sant naa ñëpp sama njaboot ak njabootu mbooleem di liggéey sëñ Maodo yow de bu ma la gërëmut war ngaa xam ne gërëm naa te wolof Njaay dane ku bëgg nit bëgg ay sagaram man bëgg naa sagar bi nga àndal wasal tey jii xol yëpp tooy nañ wax dëgg yàlla xol yëpp delluwaat nañ ci yàlla suñu borom comme li yonent bi jàngale rek moom sallallahu alayhi wa sallam nañ leen dem sàkku ji li nga xam ne mooy xam-xam donte fii ba siin la kon maire bi jàngal nañu bu baax a baax ñu koy ñaanal yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér ndax te jii lii ku ci nekk rek war nga ci gis sa bopp ndax ñi toog ci jotaay bii bari na ci ñoo xam ne bu leen magul yaakaar maguñu ko comme moom mooy bàyyi teel yëpp dem sàkku ji xam-xam kon ñun ñëpp nañ dem takkaayu dem sàkku ji xam-xam. kon mère Diop ñu lay ñaanal yàlla guddal saw fan. waa daal xàq nag dañ lay tiitaroo dañ lay sagoo kon macha allah jërëjëf Dieng. Abdoulaye mooy baayam Amina yaayam bu dul woon ak Mamadou Lamine yàlla du yamal jaam yee. xadijaatu soxnaam la xafsatu soxnaam la Famlatu du yaram jaam yee xaasimay maamam xilaafay maamam xinaanay maamam abdalay baayam woon ak moom bu du woon ak moom bu du woon ak Mamadou Lamine yàlla du yaram jaam yee moo ñu andil lislaam moo ñu andil alxuraan moo ñu andil julli juróom bu dul woon ak moom du baax bu dul woon ak moom bu dul woon ak moom bu dul woon ak Mamadou Lamine yàlla du yaram jaam yee wax na ci ñun ñu delloo xam naa bii li mu ñu defal bu dul woon ak moom yàlla du yërëm jaam yi bu dul woon ak moom bu dul woon ak moom bu dul woon ak Mamadou Lamine yàlla du yërëm jaam yi ku nekk ci sa tur ak sa sant ak ci nuyu bi nga xam ne moom lañu yàlla boole mu di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatuhu tey nag mbokk yi tey ci saxaaba bu mag bi lañ nar a wax saxaaba boobu nga xam ni moo di Ababacar Sadiq saxaaba boobu nga xam ni ca turam dëgg ñun ko naan Abdullahi ibnu Abi Xuxaafa saxaaba boobu nga xam ne moo ñaareel yonent bi keroog ba ñuy dugg Medine moo ñaareel yonent bi keroog ci xilaafa ba moo ñaareel yonent bi keroog ba ñuy dekki moo ñaareel yonent bi keroog ca biir suuf kooku mooy papaay Aïcha kooku jëloon léppam jox ko sallallahu alayhi wa sallam tey nag mbokk yi ci kooku lañu naan waxtaan bés amoon na yonent woo Ababacar jox ko benn jaaro ni ko dama bëgg nga dem ca tëgg ba tëgg bay defar jaaro nga wax ko mu bindal ma ci jaaro bi laa ilaha illallah Ababacar jël jaaro bi dem ca tëgg ba ne tëgg bi man de ki ma yónni nee nga bindal ma ci jaaro bi laa ilaha illallah waaye man maa la wax nga yokkal ma ci muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tëgg bi bind laa ilaha illallah muhammad rasulullah tëgg bi pare Ababacar jël jaaro bi dellu ci bi jox ko jaaro bi yonent bi liir laa ilaha illallah Ababakar Sadikhullaa yonent bi ne Aboubacar ah Aboubacar man de ba ma la joxe jaaro bi dama la newoon nga bindal ma ci laa ilaha illallah waaye gis naa ñu yokk ci Muhammad rasulullah Ababakar Sadikhullaa Ababakar ne ko waaw maa wax dëgg bi mu yokk ci Muhammad rasulullah ndax ñemewu ma taqali sa tur ak turu yàlla suñu borom moo tax ma yokk ci Muhammad rasulullah waaye sa Ababacar Sadikhoullah leer na ma ne tëgg bi yokk ko ci ndax ba may indi jaaro bi Ababacar bi nekk ci woon yonent bi ne ko waaw li nga wax dëgg la ndax Jibril a ngi nii taxaw sama wet te nee na ma ne yàlla moo changé bind gi ndax nagam yow ñemewoo tàqali sama tur ak tur yàlla suñu borom nee na moom it du tàqali sa tuur ak sama tuur kon nag mbokk yi dégg ngeen loolu xewoon ca diggante yonent sallallahu alayhi wa sallam ak Ababacar Sadiq ngir gën a dëgëral seen diggante ba si amoon na ababakar jóge ci naaj bu tàng jër dox ñëw ba ci yonant bi fekk ko fa mu toog ne ko ay yow mii yàlla yónni sama géléem yi sàcc yi sàcc nañ ko yonent bi ne ah Ababacar man de ba ma la gisee ngay dox ci naaj bu tàng bi ñëw fekk ma fii ma toog foogoon naa ne benn waxtu julli moo la raw ci biir mbooloo Ababacar ne ko ah yonent bi man ma ne la sama sàcc yi sàcc sàcc nañ ko nga ne ma dama foogoon ni waxtu waxtu julli moo la raw ci mbooloo yonent bi loolu doy na waar de yonent bi kon mbokk yi dégg ngeen loolu yonent bi wax loolu mu wax ci julli kon nag lii li wax jooju liñ ciy jàngat li ñuy jàngal nit ciy jàngat mooy ñi nga xam ne duñu julli duñu julli waxtu dañuy négliger julli ñi nga xam ne joxuñu importance julli ñi nga xam ne dañuy toog bés bu bés bu mën duñ ci waru ci yàlla waru ci yàlla kon nag mbokk yi ñoon la jàngat ñu wax Euh, ñu leen di wax ci importance su julli ci doomu aadama kon nag ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di ñaanal mbooloo mi julli di ñaanal sama pap di ñaanal sama yaay di ñaanal sama maam Mansour yal na ko yàlla may gudd fan ak wér-gu-yaram di ñaanal sama maam yi fi teew di ñaanal bépp mbooloo mi julli maa ngi leen di ñaanal di ñaanal oustaz ak soxna si yàlla leen yàlla may gudd fan ba dund ba ñu fekkee njëriñu bébé Mansour incha allah kon nag maa ngi leen di ñëpp xam nañ ko ci daara ji depuis ñuy commencé conférence bi ba léegi at bu jot rek day gën a wane taxawaayam yal na la yàlla def mag mu am ñam waaye nag danga dugg ci koo xamante ne ne kenn la woon ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muy Aboubacar Sadiq ni mu ko waxee kooku moo ñaareel yonent bi ci islaam ñaareel ko ci gàddaay gi ñaareel ko ca xuntuwa ñaareel ko keroog ba ñuy dugg Médine ndax keroog ba ñu yegsee ci xuntoo di xaaru suur Aboubacar dafa ñëw ci rasulullahi feggoog moom ne ko bàyyil ma njëkk a dugg su fekkee daa am luy lore mu lor ma yow nga mucc islam mucc adduna mucc Aboubacar ne saraax ca biir xuntuwa su mu yére bi mu soloon fekk xunt yi dafa am ay pax muy xotti yére yi di sañ pax yi di xotti yére yi di sañ pax yi bu yéreem bi jeex tàkk mu des benn pax mu fa tànkam ne rasulullahi bismillah njool màkka muuñ xool ko ne ko ah Ababacar da nga ne moo tax nga jiitu ci paxu adduna yi waaye bu ëllëgee dinaa fàkk ba mu baax jiitu la ca paxu àllaaxira moo tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na keroog bi mu nekkee ci biir xuntu wa keroog la aaya ba wàcc yàlla ne ko saani isnayni iz humaa fil ghaar iz yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha maanaa ne keroog la ko yàlla suñu borom wax ne ko bul tiit bul jaaxle ñaan ka ko ñaaree ca biir kàmbu ga ko ñaarelee ca aaya ba ko bul tiit yàlla nga ànd moom mooy Aboubacar Sadiq moo tax rasulullahi nee keroog bésu dekki bi yàlla naa wa ja'alnaa fawqa suur fa dalika yow mooy seen yow mun asir alal kaafirina xayr yasir keroog bi yàlla naan zarni wa man xalaqtu wahida keroog bi yàlla naan yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah keroog bi nga xamante ni amul benn bakkan bu jëriñ moromam yawma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa bannihi li kulli imri'in minhum yawma izin sha'nun yughnihi yàlla nee na bés bi nga xamante ne nii jëkkër dina gis jabar daw yaay gis doom daw bàyyi gis doom daw nga dégg olof jaay naan nijaay rek afay tal jeeba wax di yàqu la nijaay boppam la tal yàlla nga ne bés boobu bés bu doy waar muy keroog bi ñuy jàkkaarloo yàlla suñu borom waaye yonent bi nee na keroog bésu dekki man rasulillahi may njëkk a jóg duma sama côté ndeyjoor Babacar jóg yëngal njañ ku mu jóg soobatoo bu ñëpp taxawee nag mu des lu dul ñu jàkkaarloo yàlla suñu borom war ko utali bu suñu borom ne jege si leen kenn du ñemee dóor paa ku dul man njool maaka ma ne nii ful ma di utali yàlla bi nga xamante ni ful bi départ nañ utali yàlla suñu borom may baagante kanam di baagante ginnaaw ku génn ma ne la dugaatal kuñ jàpp ma ne leen bàyyi leen ko kii sama xeetu la waaye nag keroog jahannama tammi bi saari kal xasri ka annahu jimalatun sufrun kullun yawmin zindil mukazzibi ne na keroog safaraa ngi sànni ay ferñeent yu toll taaxu ko bu defee sama gaay di tiit di xulli ay bët ma naan leen nii dal leen dal leen bu leen tiit bu leen ragal bi ñuy dund safara te pour yéen ne na keroog lay jël waawul hamd dara ko ca teg ko ci loxoy Ababacar man Ndiol Maka keroog caabi àjjana sama loxo lay nekk dama ñëw tijji bunti àjjana wéeru ci buntu bi te naan ñi sama gaay dugg leen dugg te yàlla du ma ne ndax rasulullahi doy te man it du ma ne ko ah, yàlla doy na ko laaj te du ko te su ko laajul du ko ndax mu ne wala saw fa ñoo ci kanam bu ko fataataa kon kii fi mu dugg ñun mënuñ ci woon ñàkk a barkeelu muy ki nga xamante ni moom mooy Aboubacar Sadiq ndax dafa liggéey lu bëri ci lislaam kon mënoon nañ gën a xuusaat kon maam Fatou ngi lay ñaanal yal la yàlla def mag mu dégg ci lislaam kon yaa Seyda ñu continuer auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiina allahumma salli ala seydina muhammadin wa maa ngi nuyu oustaz Mouhamed Mbaye di ko jox wàccuwaayam di nuyu njabootu daaray alxaq kenn ku ne ci turam ak santam di nuyu mbooloo mi fi teew di nuyu ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu incha allah maa ngi indi thème bu am solo muy lu ci biir famille yi bu ñu naxantewul famille yépp a am problème mu nëbbu mu feeñ muy lu yéeme xaala rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam an abi hamzata anas bun malik radiyallahu anhu xaadimu rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam nabiya salallahu taala alayhi wa sallam laa yuxminu axadukum xatta yuhiba li aqihi ma yuhibu li nafsihi rawaawu buxaari wal muslim jële nañu ci papa Hamza anas ibnu malik radiyallahu anhu mu xamal ñu kuy anas mooy xaadimu rasulillahi sallallahu moo njëkk jaayanteek yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk mbindaanam anas moomu wax na ni jële na ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu wax ni yàlla du nangul kenn ci yéen ngëm yàllaam su dul li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa mbokkum jullit ma dégge si ne kon jullit bu gëm yàlla mooy kiy jàkkaarloog mbokk jullitam mu mel ni seetu ndax boppam la cay gis jullit ak mbokku jullitam dañoo war a mel ni benn jëm ba cër bu ca metti yaram yépp yëg ko loolu mooy imaanu bila te xel yi du dem ci ki tax ñu bind ñu muy gën gi mi ndef alayhi salaatu moo fi ëppooni noon te lépp ci biir biiri mbokkam la woon rawatina ca bakka sunu boroom joxe nuguwa bi takkal ko garaat ne ko anta rasul sunu borom ne ko yow mi yàlla yónni gaawal dogale ji sa xeet wi ña nga nee di daw wutali safara te ba ma koy bind ñoom taxuñu ca la mbokk papaam yi jóge ne bëgguñu mu jiite leen te duñu mës a nangu mu jiite leen ndax gënu leen juddu mbugal mi tàmbali jëm ci sang bi ak ñuy fexe faat bakkanam fu ñu tollu mu tew a antu ndax ndimbalal borom bi sang bi dem na ba xajatul màkka ndaxi mbokkam mu ne leen ku am néegu baay am néegu yaay maa ngi dem ci sama mbokki yaay yi alimatu saadiya fekki samay nijaay ndax foofu tane sang bi jàpp yoon ànd ak ku ñuy wax Zeydu di doomam bi mu adapté naka lañu yeggee Taïf ñu teeru kaak ay xaj boole kaak ay dof ak ay xale ñu di ko sànni xeer ba tànk ya di naaj fa la waxee Zeydou gaawal naan sama deret ji bala muy laal suuf àddina di tukki ndax man rasulullah man rasulullah man sama deret suuf àttanu ko allahu bar ca la sang bi dawee dellu waaye ba muy dem amul woon ndigalal borom bi sang bi des màkk di muñ ak yenam bu diis bés jot sunu borom ne ko tey jii ngay gàddaay génn màkka mu amoon ci tiis ak njàqare ne man màkka laa juddoo fii laa yaroo fii laa màggee fii laa amee njaboot fii laa amee lépp yaa ngi may génn dëkk bi ma gën a bëgg waaye maa ngi lay ñaan yow sama borom yàlla na nga ma yóbbu fi nga gën a bëgg ca la ko sunu borom yabalee medinatul munawara xat-xat ba amoon ci diggante sang baaki mbokkam ak coonoog metit ba mu ko dunde woon loolu moo tasaaroo ci àdduna ba jëkkër ak jabar ñi ngi bañante waajur ak doomam ñi ngi bañante ñu bokk ndey ak baay ñi ngi bañante mbokk yaa ngi noonoo bay dogoo dëkkandoo yaa ngi bañante ba ci Sooda Touré ak ñaari jigéen ñi bokk jëkkër bokk benn ëtt dëkkee tojante bopp ba dëkk bépp mere leen Sooda Touré xëy boyal àndam ba mu yànj mu dugg ci biir néegam tëju nes tuut néeg bi di tàkk mu yuuxu wollu Ami ma ca ëtt ba it yuuxu woote wallu jigéen ñi yegsi nañu mu nekk wallub tool teen ndax góor ñépp dem nañu tool Ami Njaay ne yoot kuur ñun jullit ñi dafa mel ni seytaane dañoo fëkk ba ñu bëgg a fàtte boroom lépp fépp mii boroom kun fa yàkkul di yàllay boroom mbindéef yi moom ñàkk moom koom am teraangaam yi di ko jox ku ko neex saa yu ko soobee nañu nangu ndogalam yi te ñaan ko mu solol ñu imaanu bilaay ci suñuy xol lu ci leer yàlla la lu ci lëndam gàtt xam-xam la alhamdulilahi rabbil alamina bi ma sunu borom ommatee ba dugal ma ci daaray alxaq daalay dëgg ji maa ngi ñaanal oustaz Mohamed Mbay yal na yàlla guddal ay fanam wéral cëram yokk xam-xam yi bàyyi njabootam bàyyi kaag jullit ñëpp di sant njabootu daaray alxaq di sant sama boroom kër ak sama njaboot ñoom it ñi ma yombalal dem beeg dikk bi di sant mbooloo mi fi teew di ñaanal jullit ñépp koorug jàmm di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah taalaa wa barakatuhu asalaamualeykum tey ñoom si nekk maa ngi kon macha allah yaa Seyda nuyoo bi am na solo tey nag ñu bëggoon nga leeralal ñu lu am solo loo xam ne kenn ku ne ci nit ñi rek yittewoo na pour xam muy lan salaatul jumaa di julli jumaa. julli juma bari lu mu ëmb ci lu am solo te tey fii ñu nekk ci Sénégal ñu ci mel ni man daal bëri na ci ñoo xam ne waaye du ñu am juma ngir ñàkk xam ñu bëggoon na nga leeralal ñu lan mooy julli juma. waaw oustaz julli juma mooy fas loolu bunt salaatu jumu'at julli juma fardu ay la. loo xam ne kenn mën na def ne yow yaa ngi mën a def ko yu mu toog di lee xaar jëm ca julleekaay ba waaye li mu waree fal waree fal la ci biir jëmi alal bi alal bi bi daari ci gën a ci sori xam la li njëkk ñi daari mi daari ci keema maa yu diggu ci li nga xam ne ndax àttan na wa alal xabibi ak ki jege bi sawaali samsi ci zawaalu jant bi oustaz loolu mooy buntu julli jumaa kon macha allah loolu leer na julli jumaa ngi noonu kon ñu déggee ci ne fardu ayni la ci kenn ku ne amul kenn ku la mën a dem di la julli jumaa waaye ñu déggee ci ne it atte naa fi la lañ koy atte ndax mboolem julli bu dul julli suba tisbaar takkusaan timis géeye bu dul juróomi julli yooyu julli bu ñëw rek àtte naafila lañ koy àttee julli jumaa boobu bëggoon nañ xam ñan la war kan la julli jumaa war waaw oustaz julli jumaa yi war juróom-ñaar la ci njëkk ci mu war mooy jullit ñaareel ba di muskala ñetteel ba di gor ñeenteel ba di góor juróomeel ba di ki dëkk ci dëkk bi wala ki dëkk ci quartier juróom-benneel la ci ki nekk ci dëkk bi doonte dëkku fa juróom-ñaareel la ci am wér-gu-yaram lii mooy juróom-ñaareel yi war a julli juma. kon macha allah kon ñu déggee ci ne juma. plafond nekk fa di waxtaan rek waaw loolu rek lañ fay nekkee loolu ngeen bàyyi ci xel da ngay gis ne dañuy julli ci juma au lieu suñ jullee ba pare génn naa ci buntu bi soxna yi jaaree waaye faw ñu jaaree pour imam bi ci seen xam ne di ko julli si na. lool moom ci naree am moom bañ a ji sax ko kon ngeen xam ne julli juma du farata ci jigéen waaye nag soo demee ni nga am tiyaaba farata la nag ci góor bépp boo xam ne yaa ngi julli juma jàppal ne julli juma farata la ci yow. beneen ci topp bëggoon nañ xam yan charte ñuy wéral julli juma. waaw oustaz charte yi wéral julli juma ñeent lañ charte bi ci njëkk mooy imaam ndax julli juma bu amul imaam du te imaam ba nag day dëkk ca dëkk ba wala mu dëkk ca quartier ba kon nag mbokk yi ñu déggee ci ne gan du jiite julli jumaa gan bu jiite julli jumaa julli ji ku bëgg ñaareel di mbooloo mbooloo ma nag mi ngi tàmbale ci fukki nit ak ñaar jëm kaw ñetteel ba nag di jokkale sàppe te yéen xale yi góor yi yéen laay wax yéen ñi nga xam ne da ngeen koy ba tax ngeen di dàkk taaru garab ak tegu mbir mi léeg-léeg ñu ñëw ci biir jumaa ji bu jumaa ji feesee dañ jokkale wala yeneen sàpp ci fekk jumaa bu boobu feese na ba yegg si seen kër yi baax na fa agsi wulee nag seen julli jumaa boobu ak ki nga xam ne këram daa dend ak jumaa ji bu nga toll biir këram di ànd ak jumaa ji di julli bu jullee wërul ñeenteel la di xutba te xutba bi nag li njëkk ñuy julli lañ koy def te imaam bi xutba mooy jiite su ngànt amulee bu ngànt amee nag mu wutal te keneen lii mooy ñeenti saat yi wër a julli ma moo tax yàlla nga naan ca aayam yaa ayyuhal lazina aamanu izaa nuudiya li solaati min yawmil jumaati fas'awi ilaa zikrillaahi ilaa zikrillaahi fa ilaa zikri ilaa zikrillaahi zarul bay'a zaalikum xayrun lakum in kuntum ta'lamuun képp ku gëm yàlla comme yonent bu teel bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu nootee lépp loo doon def na ko bàyyi te dem julli ci muy kay liggéey kay jaay ndax bu ñu xasee ba noot lépp loo ko jël dafa aar ba nag mbokk yi déggee ci ne bu ñu déggatee noot nañ bàyyi li ñuy def bi dem julli parce que ki nga xam ne sax julli ji maanaam waru ko nga bàyyi li muy def ba ñuy julli ba julli ba pare ñu soog a dellu nag ci njaay ma ak ci liggéey mbokk yi loolu laa leen fi dugal ci maa xaw a grippé moo tax baal bi dañ ñu maa ngi sant ñëpp di gërëm la di sant di gërëm sama waa baal baal ak ak waa Cité Aliou Sow bi nga jëlee ci siis ñoo ngi fi teew ci conférence bi di sant di gërëm la sama ustaas ndax boo gisee ñu am sañ-sañ taxaw fii lii yëpp suñu ustaas ndax bu ñu dugg ci daara ji xamuñu daal. waaye tey macha allah ñu ngi sant yàlla jërëjëf loolu jàllee na tey maa ngi leen indiloon yoo xam ne dañ ne suñu suñu borom subhaanahu wa taala moo leen dig ajal muy Ababacar Sabir Omar bul Xattaab Ousmane bul Xaffar Ali ibnu Abu Talib Talxata ibnu Ubaydillah Sahabu ibnu Abi Waqaas Zubeyru ibnu Awaan Abdurahman ibnu Awf Abu Ubayda Amir ibnu Jarrah Saïd ibnu Zayd fukk yooyu nag ma jukki leen ci kenn rek mooy gaynde lislaam mooy gaynde bu weex mooy borom loxo bu tubbi ngelaw sax bu ko mu fit kooku mooy kan kooku mooy Saad ibnu Abi Waqaas ibnu Abi Waqaas papaam dafa teel a kaar la am te ku bëgg Ababacar Sadiq moom puutal ci diina ji bi yaayam njëgee dugg na ci diina ji dafa def grève de la faim tëdd ci naaj bi lekkatu naanatu mu ne Saadu na dellu ci waat ci yéeféer bi Saadu wax ko yaay boo juróon téeméeri doomi bés bu yàlla sàkk kenn dee bés bu yàlla sàkk kenn dee lu tax ma mel seet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ko yàlla wax ni Saadu bul wax noonu ak say waajur war naa ko ndax moo la ëmb juróom-ñeenti weer moo la nàmpal moo la gëttee eh, moo la nàmpal moo la gëttee kon nag war naa ko ci la ko ci la ko wax ni waaye tamit bul nangu mu def loolu ci ci li yàlla santaane loolu nag laa leen fi indiloon lu jub ci yàlla la lu dëng ci man mii la assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala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 ay 45 wàcc si Madinatu Munawwara bismillahi rahmani rahim wa katabna alayhim fiha ana nafsa bil nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wa sinna bi sinni wa juruxa xisoosum sadaqallaahu azim yéen mbokki jullit yàlla nee man maa daganal si yéen farataal si képp ku rey nit te tey ko nu rey la képp ku luxi bëtu nit te tey ko nu luxi sa bët képp ku dagg nopp nit te tey ko nu dagg sa nopp képp ku dagg bakkanu nit te tey ko nu dagg sa bakkan képp ku damm bëñu nit te tey ko nu damm sa bëñ képp ku gaañ nit te tey boo nu xool fa gaañ-gaañ ba yem nu fay lu nu toll ndax mbokki jullit yi aaya bii bi ko yàlla di wàcce si kaw suuf booba Sénégal amagul de waaye ñu mel ni tey jii la léegi nii sunum réew ñun julli di surtout ndax lan rey yu ñaaw bari yi te teguñu ko fenn lu dul seen tayeeku bakkan rawatina yéen góor ñi nga xam ni yéenay jàpp seen soxna yi di leen dóor di leen jami paaka ba nu jaare ñàkk seen bakkan waaye yéen jigéen ñi kenn demul ngeen des nga yéene jàpp seen borom kër yi di leen soole di sotti essence vitale ba ñu jaare fa seen bakkan yéen jigéen ñi ba tey yéene du seen doom yi bopp yi di rey di suul jàpp seen wujj yi di rey lii moo ñaaw mbokk jullit yi li si gën a doyatuwaat te bari lool metti lool itam ba ci démboo njaay rek xale ndaw pour tànk yi jàppale di leen rendi xomum xaar ndax nag alal lii moo ñaaw mbokki jullit yi yàlla nee képp kuy def jëf ju ñaaw yi sa dëkkuwaay ëllëg mooy jafanama maanaam safara te ñaanal ñi ni bi bàyyi loon nu fi sallallahu alayhi bi muy dem nee na topp leen alquran borom bi subhanahu wa taala ak sama sunna man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa borom bi yéen mbokk jullit yi yàlla nee képp kuy def jëf ju ñaaw ji rek sa dëkkuwaay ëllëg mooy jafanama te mbokk jullit yi day day tey kañ la nga fayu mu ni kii dafa soxal kii dafa iñaan déedéet xanaa déggu leen aaya bi di wa katabnaa alayhim fiiha ana nafsa bi nafsi wal xayna bil xayni wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wa sinna bi sinni wa juruuxa xisoosun sadaqalal azim xanaa di wàcc aaya bi dafa soxal déedéet yàlla soxalul de ndax mbokki jullit yi aaya bi di suratul Maayda bu nu xamoon li si yàlla wax ba di ko jëfee kon bépp kaso daan yoon sunu réew ba ni jënd di ko fa dugal rawatina ñu jullit yi ndax nga jàpp sa morom jullit rek xool ko ni tey ma rey la tey ma jël sa bakkan yaa xam da ngay dóor yaa xam da ngay rendi yaa xam da ngay jam wala sax nga yóbbu si sëriñ ba mu jaaree ko ñàkk bakkanam ak foo mënti doon ak foo mënti bokk yow de yàlla mi lay xaar si safara jaxanama ndax yàlla moo wax ne man boo ko te waxu yàlla du naax saay mbokki jullit yi maa ngi ñaax sama bopp di leen ñaax nan delloo sunu xel si yàlla balaa rëcc du wees yow mi def jëf ju ñaaw ji rëcc nga si kasu àddina waaye doo rëcc si kasu àllaaxira ndax yàlla waxam du naax saay may sant nag sama borom subhaana wa taala lii laa leen indiloon di julliwaat sang bi salallaahu alayhi sant sama ustaas mii di Mouhamed Mbaye sant waa daara alxaq yépp ak sama mbokk yi si biir baas bi ak am di jàmm yëpp di ñaan nag yàlla ba déwén incha allah yàlla bu kenn manqué lépp lu jub si wax ji rek borom bi subhaana wa taala lépp lu si dëng jëmm ji doon addu ngeen di teewlu asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim rabbi saxri sadri wa yasri li amri waxlul uxdatam li lisaani yafqahul xawli mbooloo mi maa ngi leen nuyu nuyoo bi subhaana wa taala boole muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa tey nag dama leen indiloon xadis bu am solo xaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam talabul xemli faridatul ala kulli muslimin wa muslimatin sàkku xam-xam faratale ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen sàkku xam-xam yaa ngi koy commencé ci bi nga nekkee liir ñu tëral la sa laytaay ngay sàkku xam-xam di sàkku xam-xam di sàkku xam-xam bañ tëral sa kuus bàmmeel sàkku xam-xam jar na dem ba Chine yàlla nee na xam ma bala nga maa jaamu ndax boo ma xamulee doo ba doo mën a jaamu dem na ci ba nga xamante ne tey jii sama classe bi nga xam ne dañuy julli di sëgg ak a siggi te xamuñu lan mooy farate julli ak lan mooy sunna yi dem na ci ba xam tey jii buñ la mayoon tey biir màkka tey jii doo xam farata yi nga xamante ni moom nga fay dem defi ji da nga koy kal ci ni giddi yi may àndal te amaana giddi yi mën na am bu ngeen demee ba Médine dootoo leen gisanteeti kon nag sama mbokk yi maa ngi leen di ñaan ngeen sàkku ji xam-xam lii nag laa leen fi indiloon lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng ci man mu xeeb muy السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد محمدا عبده ورسوله yéen sama mbokk jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen nuyu ci nuyoo boo xam ne sunu borom moo ñu ko boole subhaana taala muy asalaamu aleykum wa rahmatullah xaala rasulullah salallahu man satara musliman satara wu laaw yowmal qiyaam yonente bi salallahu alayhi wa nee na ku suturaal jullit keroog yowmal qiyaam yàlla suturaal la kon ñun jullit yi nañu suturante te yirante malaanum sutura bi moo gën ñuy xawente sutura bi ndax suñu borom moo ko bëgg nit ñaa ngi xawente sutura léegi ci mbedd yi ci portable yi ñuy enregistré nit ñi yooyu yëpp xawi sutura la da ngay gis sa moroom mu ñëw wax la lii ci sutura mais teewul fukki nit daañu ko yëg doo xam sax fan ngay teg sa tànk léegi loo wax nit mu senn loo jox nit mu lekk te sunu borom nee na nañu suturante te yiirante malaanam sutura bi bu ñu jegee di wax jamono dafa yàqu jamono dafa yàqu jamono mësul yàqu jamono yàllaa ko defar ba defaraale ca loo xam ne du mën a yàqu keneen ku fi defaroon leneen day xëy suba yàqu kooku sunu borom bi rek moo ko mën subhaana taala moom mi defar jamono nañu yiirante malaanum sutura bi ndax sunu borom mi ngi wax ne képp ku suturaal jullit wala nga xaawi sutura jullit bu keroog yomal xiyaam fa nga soxlaa wege ak sutura foofu lay xaawee sa sutura kon nañu yiirante malaan mi te ñu suturante jamono yàquwul jamono yàllaa ko defar ba mu ci loo xam ne du sa yàqu nañ defar jikko yi jikko yi ñoo yàqu ku dul yàlla mënoo ko dañuy wax ne jamono dafa yàqu ndax sunu yaay yeeg sunu papa yeeg ñoom ñëpp ñu ngi fii mais da ñoom dañ daan suturalante léegi nag jamono bi nag nit ñi dañuy xawente sutura nañ defar jukko yi te tënku ci li nu yàlla wax ndax faaw daañ taseeg sunu boroom dañuy wax jamono dafa yàqu asamaana gi nii yàllaa ko defar dara mus ci yàqu nañu te ñu bàyyi sutura yi ñuy xaaw yi te roy ci sayyidina Muhammad sallallahu taala wa sallam kooku mooy suñu référence kooku la yàlla tagg ci jikko ju rafet ba ne ko wa inna xalaala xulixin azim kooku mooy borom jikko ju rafet ji ci moom lañu ñu war a roy kon nag nañu suturante te bàyyi jëw bàyyi suñu làmmiñ yi ñu teg ci jaru gor yi di wax di wax rek yàlla moo sàkk làmmiñ ba def ko ñaari kubéer muy bëñ ak tuñ pour lépp lu jullit di wax rekk war na ko seet seetaat ko te ñu yirante malaanum sutura bi loolu la suñu borom bëgg kon nag man loolu laa leen fi indi loon mina seytaan rajim bisimilah rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillahi rabbi alamin alhamdulillahi rabbi alamin alhamdulillahi rabbi alamin ba ma santee sama boroom julliti yonenteem bu tedd bi di seddina muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi nuyoo nuyoo bu ñu yàlla boole mooy assalaam aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alxasuudu yaa la ku iñaan du nekk sanga stage ko ina mënut a nekk sanga ndig sanga ay qualité la yore ay jikko yu baax la yore nekk sanga du du caaxaan de déedéet mënu nekk caaxaan parce que ku nekk sanga nga nekk jullit pire sa jikko day laab sa jikko day set loo yéen sa bopp nga yéene ko sa morom waaye nga iñaan kooku du jullit du wàlli jullit ah seet leen Seydina Muhammad sallallahu